aywa li si yéenekaay Macky Sall bu doon kuy luyee jot na caution ngam uppil yéenekaay bi conseil constitutionnel bi nga xam ne premier ministre Amadou Ba saisiroon na leen ngir mu mooy président de la république Macky buy tax mu defub décret buy tëral anam yi ñuy wàññee wàllu luyaas gi uppil yéenekaay bi yéenekaay bi nee nañu juróom-ñaari saage nekk ca conseil constitutionnel nangul nañ ko lu ni mel las quotidien xëyee ak juróom-ñaareelu ndaje sommet financement des Afrique yi bés bi le jour tribune ni poroxaan tey ji nekk na nag célèbre yoonu bépp julit rawatina taalibe muridi ca màggalu poroxaan maam jaara buso waajur ahmadou bamba fexe ba génn si lu toll fanweeri junni ménage ak juróom ñetti téeméer yu tekk juróom benn téeméer di 38 900 ménage ñekk si réew mi ñu fexe ba ñu am courant le mandat ni ñu mooy njariñu programme bi ASER indi njiital agence sénégalaise électrification rurale di baaba Diallo moo ngi leeral si journal bi tax a jóg boobu le programme ak fu mu fas yéenee jaar ngir mu sotti la ñu démb la woon bi ñuy daloo station bu toleke ba ñekk ca gudiri fala xam le ne ay projet la yoo xam ne dafa dëppoo ak bëgg-bëggu njiitu réew Macky Sall moom rek bëgg fii ak atum 2025 courant bi daal di daj ci Sénégal fépp foo jaar fépp daal di leer yoon di justice wala leeral tey ji coowal li dox ci diggante ministre bi di Mame Mbaye ak njiital Pastef moom Ousmane Sonko yéenekaay yu bari xëyandoo ak procès Mame Mbaye Niang Sonko bokk na ci li nu xëye moom Walf Quotidien tudde boobu le procès procès à haut risque muy procès ne lu nekk mën na saa xewee ci coow loolu la a di ñu xamal rek ni la nga xamante ni moom la ko yoon di toppee toll na ci ñetti infraction li xewoon si diggante Mame Mbaye Niang ak njiital Pastef Ousmane Sonko source a di fàttali rek ni Mame Mbaye Niang moo yóbboon Ousmane Sonko sa yoon ngir tiiñal ko si wax ko waxal moom Mame Mbaye Niang jàpp ni loolee nekk na kàddu xam ni dëgguwul li xewoon si diggante ministre bii di a xëyee moo ngi fàttali rek ni ñu Mame Mbaye Niang moo yóbbu Ousmane Sonko ca yoon ngir tiiñal ko si wax ji mu wax moom Ousmane Sonko wax rek ni dafa am ab rapport boo xam ni waa inspection générale d'État ñoo ko siiwal di wax rek ni moom Mame Mbaye Niang nekkoon ca Prodac dafa am ay caxat-caxate inspection Dakar ñoo ko def di tuumaal Mame Mbaye ñaar ak caxat-caxate gum doon def foofee ca Prodac loole nag la Mame Mbaye Niang jàpp ne ay wax la yu dëggut ba tax mu yóbbu kii di njiital Pastef foofee ca kanamu yoon moom nag Mame Mbaye di sàkk rek moom njiital Pastef Ousmane Sonko fexe ba wax tuuma yooyu mu yëkkati ngàllu ko si roosam fan la ko teg journal bi tegal ñu si ñetti mbir la Mame Mbaye toppee njiital Pastef Ousmane Sonko la zëkk ñetti infraction la parquet bi gàll si ndoddul Ousmane Sonko moo mu njëkk ma ngay xamle la nekk citation boobu le journal bi askan wi takku nanu ba dëgër doon wenn say ngir fas yéene taxaw ci ginnaaw Ousmane Sonko ngir jàppale ko boobu la waxtu réew mi quotidien mi ngi xëyee dinu xibaar ni ñaar nekk sa assemblée nationale bokk ci yeewi askan wi ñoom député yooyu li ñu bëgg mooy fukki ministre yu ñu tudd ci rapport force covid yooyu les ministre nag ñu gàdd leen yóbbu leen ca kanamu haute de justice atte leen l'info ñu toll nañ ci fukki ministre Mansour Faye ca la tudd na leen ñoom député yi yeewi askan wi nag di sàkku ñu yóbbu leen si haute cour de justice ngir ñu indi ay leeral ci tuuma yu ñu gàddi seen ndodd ñu jeexale ak mbir mu doy waar ab soxna bu ñu ëmbaloon ki ko ëmbaloon nag daal di bañ lu nu mel soxna si bàyyi ba doom ju judd mu daal di koy faat jërë ngeen jëf ñu yendu jàmm faat